Rewmi 24 TV. jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek yéen ñu koy topp ci site internet bi di réew mi 24 TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy do rek ancien président sénégalais bii di Macky sàll moom nag daal nañu koy gis ci invité Euh, d'honneur yi nga xamante ne rek Emmanuel Macron daal dina leen invité ngir ñu amal nag ab dîner boo xamante ne rek da koy daal di jagle président américain bi di Joe Biden ak ki nga xamante ne moom mooy soxnaam di Jill Biden mu nekk nag ab visite boo xamante ne rek mu nekk premier visite état boo xamante ne rek France dina ko am ak ki nga xamante ne rek moom mooy Joe Biden mi nga xamante ne ñu ngi koy xaar niki àllarba ci suba foofa ca diwaan bu Paris mu nag mbir moo xamante ne rek dafay tombe quatre-vingtième anniversaire bu démbarquement waaye nag nit ki samedi rek kii di Emmanuel Macron daal dinay dëggal ne boobu les visites nag lañ ca namu dul lenn rek lu dul waajal nag yeneen élection présidentielle yi nga xamante ne rek yeneen élection yeneen yi nga xamante ne rek dañ koy amal uh, ci échelle internationale rawatina nag sommet bu groupe 7 bu bari nga xamante ne jàpp nañu ko ci mois juin bi foofu ca diwaan bu Italie ak li nga xamante ne rek moom mooy sommet de l'OTAN nga xamante ne jàpp nañu ko niki juillet uh, foofu ca diwaan bu Washington uh, du ñàkk rek nag dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaay xabaar su ma jógee foofu nag dañuy àddu rek wax ci Cheikhna Keita ñu nekkoon ex commissaire ne na daal Diomaye ci jëmi boppam rek problème la ndax nag ñu ngi jàkkaarloo ak président boo xamante ne rek kenn xamul nu ñu ko tànnee ak naka la ñu ko tey jii gis nañ ne situation réew mi rawatina nag bu Sénégal kii di Diomaye rek moom ci jëmi boppam rek problème la ndax nag jàkkaarloo bi nga xamante ne ñu ngi koy gis président de la république bi nga xamante ne daal dinañu koy tabb te kenn xamul rek naka la ñu ko tabbee daal dinay jur ay jafe-jafe nag ci ay gëtt ndax déplacement am yeeg propos yu mu yëkkati ak problème bi nga xamante ne rek moom la ñëwee nag ci pouvoir bi yëf yi nag dafay daal di wane ne rek kii daal dafa raam rek bay yegsi ci tànk premier ministre am ba tax na nag nee na daal mbir mi daal dana jur ab débat boo xamante ne rek sàkku na nag ñu daal di ko ci amal ndax premier ministre moom ci jëmi boppam rek mel na ni moom moo mujjee occupé lépp luy espace ci pouvoir rawatina nag lépp loo xamante ne rek président de la république mi ngi koy def te mbir mu nu mel loolu mooy crise di kat yu nga xamante ne Cheikhna Keita daal dina koy yëkkati jërë ngeen def ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir dara bañ leen raw